والقلم وما يسطرون ndax am na jotoon jukki waaye ci diggante bi ay kilifa yu mag a mag sëñ ñëw nañ fekk si ci biir saal bi waaw jërëjëf sëñ Mbàkke kilifa yu mag a mag tàmbalee ci ki nga xam ni fi ñu nii mooy sëriñ Touba ci jataay bi sëñ Modou Xabaan moom Cheikh Mamad Fadal sëñ Modou Xabaan mi nga xam ni gannaaw bi fi magam ju baax ji jógee sëñ Maam Moor mi nga xam ni kenn du ko fàtte rawaate na nag ahlul xuraan moom la Cheikh Momadou Muntaxa dénk liggéey boobu bu ñëpp ñëwoon te sëñ xabaan ñëwul day mel na kenn newu fi waaye moom kese itam bu ñëwoon wuy si alaaji sëñ Seck ak kuréel gi day mel na ñëpp ñëw na sëñ bi jërëjëf Mbàkke mu ngi feggoog sëñ xaadim loo imaam sëñ xaadim buñ ko nuyoo nuyu nañu sëñ Bassirou Lo nuyu nañu imaamu daay diwaanu Masaalikul Jinaan yëpp ba ci ji Mbàkke yu fay waaye sëñ Mbàkke ministre d'État mbay Ndiaye ku bëgg diine ku bëgg xam-xam ku bëgg alxuraan ñëw ni teewal na président mais bu ko président yónniwul woon itam day ñëwal boppam ñëw indiaale participation am ci bés bi ne Alaaji Sëriñ lii mooy sama participation ci bés bi président am na ñeneen ñu mu yebal daa ñu tudd délégation boobu bokk na ci euh, Babacar ne si ministre conseil président El Ibrahima Diong conseil spécial président ci wàllu diine inspecteur Ousmane Ba département arab ci la fa la nekk euh, El Hadji Moustapha Sylla moom mooy maire Ñaaxeen moom ñëw na ànd ak sëñ fàllu Mbuub Mouhamadou Niang représenté ki nga xam ni moom mooy Pape Abdou Fall directeur de l'emploi xam ngeen ni ambassadeur son excellence ambassadeur de la Palestine moom it mu ngi ci jataay bi ñu ngi koy tatagal bu baax a baax di ko sant moom it euh, di wax itam délégation bi nga xam ne moo jógee Iran ki ko jiite mooy directeur université bi di euh, ki nga xam ni moom mooy Ousseynou Assedi waaw Ousseynou Assedi moom moo jiite loolu imaam sëñ Xaadim loo tudd naa ko léegi docteur Thierno Ka docteur Thierno ni mu koy defee saa su nekk ci jataay yu mel nii moom it ñëw na euh, teew ci jataay bi ki nga xam ni itam mooy waa Koki kenn ci ñoom njabootu sëñ Maxtaar Naar loo ñëw na moom it teew sëñ Daam Surang ak euh, waa Taysirul Asid ñoom ñëpp ñëw nañu ñi ngi santaat bu baax itam ki nga xam ne mooy sëñ Aale Seck di kenn ci euh, Baye Serigne Seck sant ko ci teewaay bi waaye sant ko itam ci jàppale gi ak participation ci liggéey bi di sant itam sëñ Modou Diané moom it di ko sant ci loolu di sant ki nga xam ne itam mooy sëñ Moussa Diakhaté moom it ci taxawaayam ak jàpp gi ci liggéey bi sëñ Modou Kara moom it naka noonu sëñ Maam Góor Sëy euh, sëñ Cheikh Ndiarème Silla sëñ Talla mbay sëñ Ibra Mbay moom it di kenn ci bàyyi Sëriñ sëñ Thierno Seck ak sëñ Xaadim Touré euh, sëñ Papa Seck sëñ fàll Xuma sëñ Talla Xuma sëñ Cheikh Cissé sëñ Touba Diop ñooñ ñëpp di am taxawaay bu ràññeeku Baye Meng parcelle imam Ndaw parcelle sëñ Baye Diouf Dia ni mu koy baaxoo ànd ak ñun saa su nekk sañ sëñ Baye Diouf moom Cheikh Mamadou Mourtada ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax euh, Cheikh. ndongo ak ki nga xam ni itam mooy sëñ daam jaxate jurbel sëñ Mbàkke ma dajale waat yeneen ñëwaat incha allah. jërëjëf demal te ñëw indaaleel ma ki war a wax ci turu euh, parrain bi di sëñ Cheikh Ibrahima si bisimilah sëñ Cheikh mën ngaa ñëw. bu ko defee sëñ Mbacke sëñ Mbacke moom nekk lu am solo ci ñi nga xam ñu ànd ak ministre ñu ànd ak ministère d'État Mbaye Ndiaye ñu ngi ciy seetlu euh, sëñ Pape Xuma doomi mbokkum Adja Sodo Xuma ku ko xam-xam ne ñoom niti alxuraan lañ alxuraan rek la ñuy yëngutu ñu ngi koy séen ci biir jataay bi waaye di leen ndokkeel bu baax di leen jaajëfal te xam ne alxuraan rek moo leen mhm. ah, yëkkati yàlla na leen alxuraan fay te itam li ngeen yéene ci seenu dund yàlla na ko borom bi tabaaraka taala jàppandal anta bi ni'mati rabbika bi majnun